waaw dëgg la yow da nga ma posé question bu am solo parce que yaakaar naa ñun ñëpp ay jullit lañ dañu war bokk waxtu bi ñuy julli bokk waxtu bi ñuy bis yi ñuy woor lu am solo la comme gars yi def nañ ay commission yooyu nga xamante ne nii ñoom ñoo ñoo ñoo yor wàllu woowu buñ ci jotee buy demee ba ba àgg ci foofu ñi ko war a saytu dañuy jóg yaa ngi may dégg dem saytu joxe ay xibaar. kon ñun ñëpp dañu war a tënku si ñooñu xam ne ñoom ñoo yor wàllu woowu xam ma la dafa rafet tey bu korité jotee ñëpp bokk bis bi dem defe ko comme ni ko suñu borom santaane mais ñii woor tey ñii woor suba ñii korité tey ñii korité suba loolu moom ah, war nañ ci mën a gën a góorgóorlu tamit ba di ko bokk def ko benn bis. loolu ñàkk déggoo boobu parce que nit ñi moom nit ñi moom mooy loolu. gis nga àdduna bi benn yàlla moo fi am benn weer moo fi am foog naa ne fu fu weer bi mën a génnee rek mën nañ koo war a mën a woor mais yi ñoo bëgg di am ñaari korité ñett korité wala six korité benn yàlla moo fi nekk kon bu weer bi feeñee benn dëkk benn dëkk boo wax ko ni que weer bi feeñ na kon dañoo war a ànd boo kii booloo woor ci même jour bi mais nit ñi ñooy bëgg di andi ay plus de ay kii koor yu baree bari mais benn koor moo am benn yàlla moo am benn weer moo koor gi weer bi bu feeñee Mali waa Mali la ñu weer bi feeñ na nga gis ni yow doy na la n'est-ce moom nga mën nga war a mën a woor. gis nit woote ni gis nañu weer wi bu demee ba jëmee jamono dama damaa juum gisuma weer kon déjà loolu rek erreur la gis naa weer sa Vélingara quartier nanga ma ko gis te Vélingara ak secteur bu mu nekk bépp loolu man confirme gu man li ma euh, li ma gëm mooy weer wi da koy gis jaxaran ñu woor ndax ñun weer lu ñuy wooree ñu wooruñu calendrier ñu programme bu ñu gisee nu ñu woor bu ñu gisul nu ñu continuer loolu mooy waxi dëgg deuxièmement mooy kenn ku ne jël sa responsabilité dama yaakaar ne am na mbir mi leneen lu si rax lu dul maanam yàlla rek a tax yaa ngi dégg am na leneen lu ci rax lu yàlla rek a tax yàlla googu tax nag bu fekkoon ne am na yaakaar naa ni daañu xàccundoo dóorandoo man nag may ñaan xalifa général yi ñoom ñu jël affaire bi en main seet ni ñu koy doxale ndax ñoo fi ñoo fi kilifi yi ñoo fi ne bu dul ñoom dara du baax